responsabilité publique, mais aussi un symbole fort de solidarité de responsabilité citoyenne. Nous invitons tous les Sénégalais à y participer massivement pour faire de notre pays un exemple de propreté et de civisme. Aujourd'hui, nous avons déployé nos équipes à travers tout le territoire en vous faisant, pour vous faire vivre en, en, direct les temps forts de cette journée. Nous sommes particulièrement ravis de vous annoncer que le lancement officiel de l'opération se déroule à Tiaroy ce matin, sous bien sûr la supervision du chef de l'État, sans plus attendre, nous allons rejoindre notre équipe sur le terrain, Ibrahim Odjedjou Khalisek, qui se trouve actuellement à Tcharoy. Messieurs, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup euh, René Léon Fosseca et euh, bonjour chers téléspectateurs qui est venu ici euh, au niveau du candidat qui va abriter la cérémonie de lancement de cette journée consacrée au 7 Setal, une initiative du président de la République, une initiative qui vise à impliquer toutes les couches de la société, tous les segments de la société, pour que tout un chacun alors de cette affaire-là Alors, euh, une préoccupation, une préoccupation euh, qui vise à nettoyer, qui vise à mettre davantage de l'ordre et puis vise également à enlever ces tas d'immondices que l'on voit ça et là et surtout en prélude à l'hivernage. Et c'est pour cela que ici au camp Tiaroy, comme vous voyez en arrière-plan, il y a une forte mobilisation, mais aussi euh, une détermination sans faille alors, euh, de tous les acteurs du nettoiement, de la société civile, comme l'a dit le chef de l'État, parce que c'est une affaire nationale, c'est pas une affaire tout simplement des techniciens de surface ou de ces spécialistes du nettoiement, mais de tout le monde, de tous les segments de la société et de toutes les couches de la société. Et c'est pour cela donc que nous avons effectué ici euh, le déplacement, la télévision nationale, euh, comme elle a l'habitude de le faire, a effectué le déplacement pour vous faire vivre les temps forts de cette cérémonie. Une cérémonie nationale, naturellement, qui va se dérouler au niveau de toute l'étendue du territoire national. Et c'est pour vous dire tout simplement que le le président de la République tient particulièrement qu'en prélude à l'hivernage, que les canaux soient curés, que l'état d'immondice, que légalement, alors euh, que la salubrité euh, soit une préoccupation nationale et que tout un chacun alors euh, doit prendre la pleine mesure de cette initiative du chef de l'État. Nous avions connu naturellement des sociétés comme la SOADIP, la SIAS, Sonaged récemment qui est toujours là et sous peu également nous allons accueillir euh, son directeur général Abouba qui va euh, davantage nous donner alors des informations purement technique comme ni ma ko waxee rek xam ngeen ne tey jii day bis boo xam ne nii benn fan ci weeru juin day bis boo njiitu réew mi daal di tànn ne buñ ci yeggee dafa bëgg ñëpp ci Sénégal ku nekk li nga am ci ratu li nga am ci pel li nga am ci mbalit loo xam ne ni mën nga koo buubee mbalit mën nga koo tonnee mbalit ngeen ñëw ñu ànd fii ci caaro yi waaye niñ koy defee ci caaro yi noonu lañ koy defee ci réew mi yëpp daanaka tey yi foo dem ci Sénégal kilifa ya fa nekk ak askan wa dañoo war a ànd comme ni ko njiiti réew mi bëggee ñu liggéey liggéey boo xam ne nii day gën a taaral suñu dëkk day gën a itam yanjal suñu xar kanamu dëkk te nee na loolu du doon Ndakaaru rek te ne loolu nag bu ngeen gisee ñu gën cee farlu moo di dañoo dëgmal nawet bi te ku dugg wax tudd nawet itam tudd am ndox ku tudd ndox itam tudd léeg-léeg yenn barab yoo xam ne day taa moo waral fi fatt ñu mën koo fattar fi sakk itam ñu mën koo sikkar ñi bu ko defee ndox mi mën ñëw mën a wal li nga xam ne ni itam moom moo doon la ñu doon gis ñu koy wooyee mbënd ak yeneen ba mën ta jën ba jeex tàkk itam mën a wàññee lool loolu daal moo doon ittee njëréew mi réew mi nga xam ne ci conseil des ministres la ko wax soññi ci premier ministre ñu sonn ci ministre yi soññi ci itam askan wi yëpp moo waral tey c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons le directeur général de la SONAGED, M. Abouba, certainement euh, la SONAGED qui est maîtresse d'œuvre de, euh, de toute cette, de nettoiement. Nous voudrions également, Monsieur le Directeur Général, vous demander les moyens techniques humains que vous avez déployés pour la réussite de cette opération. Merci beaucoup, Khali. Merci beaucoup euh, pour euh, cette interview. Je voudrais vous remercier et dire que, suite aux instructions du chef de l'État et du Premier ministre, euh, le ministère de l'assainissement, de l'hydraulique et de l'assainissement, en rapport avec tous les ministres concernés, ont mis en œuvre les orientations du chef de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui organiser une journée de nettoiement appelée Setal Sunu Réew. Et il faut le rappeler, l'État a, a mis, a fait énormément d'efforts pour lutter contre les inondations. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait aujourd'hui qu'on renforce l'engagement communautaire. C'est la raison pour laquelle les autorités ont insisté pour que les communautés puissent s'engager et prendre en charge leur cadre de vie, l'amélioration de leur cadre de vie. C'est dans ce sens-là que cette journée a été planifiée avec l'ensemble des services concernés de l'État. Mais l'objectif, c'est aujourd'hui de faire sortir les communautés pour qu'elles-mêmes s'engagent à lutter contre ce phénomène. Et au niveau de l'État, les services de l'État ont mobilisé des moyens importants. Au niveau de la Sonagette, Sur tout le territoire national, près de 5000 agents ont été mobilisés. Sur 5000 agents 5 000 tout le territoire national sur tout le territoire national, dont 2000 à Dakar et les 3000 dans les, dans régions du Sénégal. C'est pour dire que instruction a été donnée à toutes les délégations de la SONAGED de voir dans, comment organiser dans toutes les localités à l'échelle départementale. Ça, c'est les moyens humains et les moyens matériels. Et pour les moyens matériels, 300 unités de matériels lourd c'est-à-dire 70 à Dakar et 230 au niveau des régions. Ces matériels sont composés de pelles mécaniques. Comme vous de camions BTP et aussi de camions euh, bentasseuses qui sont concernés pour ramasser ces ordures qui seront déployées au niveau de ces grandes artères. Parce que la mobilisation des citoyens entraîne une, une, augmentation des déchets sur les chemins, sur les grandes artères. Donc il, faut mettre, il faudra mettre un pour ramasser tout ça et la SONAGED est à pied d'œuvre pour que cette opération-là puisse être une réussite à l'échelle de Dakar, mais également à l'échelle de toutes les régions du Sénégal. De, de toute façon, directeur général, on va revenir à vous dans un court instant, mais euh, le temps d'avoir de, de, donner le, le, le micro peut-être à Ibrahim Diédiou, notre confrère avec qui nous avons fait le déplacement, qui est de l'autre côté également. Ibrahim, si tu nous entends, si tu nous aperçois, l'attente est à toi. Oui, bonjour, Alisek, je vous entends très bien. Et, euh, et je peux même vous apercevoir là où je suis. Euh, euh, l'occasion de nous décrire cette ambiance-là Ibrahima ana lan moo xew foofu ndax gis naa drapeau yi gis naa itam mbooloo mu bëri. gis naa waaw xaalis gis naa ah. mairie gis naa itam ñi nga xam ne ñoo doon collectivité locale yi gis naa ñi nga xam ne nii. ñoom ñoo doon aussi askan wi ndax président dafa wax ne lii bu ko kenn def mbiru ay acteur rek mbaa mbiru élite rek ni ñëpp ñëw ku nekk retrousser wu les manches ñu xam ne kat dëkk bi ñun ñoo ko mën a seetal te mel na ne ni ñu gisee askan wi ni tey jii loolu def nañ ko seen ittee Ibrahima ana fan nga toll. waaw xaali maa ngi fii ah fi nga xamante ne salaamaaleykum mbokku Sénégal. certainement kon euh, dinañu euh, le temps de de waay. waaw sëñ xaali. waaw sëñ xaali maa ngi fii euh, salaamaaleykum mbokku Sénégal bonjour à tous. maa ngi fii juste si tali bi nga xamante ne moo jëm si rond point buy jub fële ki nga xamante ne mooy. place bi nga xamante ne président foofu lay ñëw tey euh, ngir euh, def li nga xamante ne mooy bésum set setal bi mu doon mbir bu am solo parce que Sénégal moom comme ni ko waxee rek dañu war a setal sunu réew moo tax euh, xale yu bëre ñëw fii teew maa ngi dégg sànq ki nga invité di wax ni 5000 personnes maanaam fukki junni nit ñoo fi daja tey <laughs> si li nga xamante ne. juróomi junni juróomi junni juróomi junni voilà merci juróomi junni ay si ay ndaw ñoo fi teew tey pour li nga xamante ne moo di opération set setal bi parce que suñu waree setal suñu réew tamit yaa maa ngi dégg sànq ngay wax mbirum élite ñëpp ñoo war a setal réew mi te bës bi daf may fàttali woy boobu Cheikh Ndigal Lo macha allah set si sa jëm set si sa jikko set si sa jëf parce que mbir bi dafa leer tey jii duñu setalee tali bu subaa ñu teel xol yi seetal liggéey bi jàpp naa ni Sénégal dana bokk ci dëkk yoo xamante ne dinañ ko ràññee si lépp loo xamante ne jublu na ne si set parce que set aussi propreté dafa nekk loo xamante ne au-delà de cette journée ça doit être quelque chose de perpétuel loo xamante ne saa su ne suñu yeewoo rek bale suñu buntu kër dañuy tàmm di wax ci olof sax xam naa yaa ma ko gën a xam ni balaa ngay bale buntu kër jàmbur nga bale sa buntu kër mu doon encore une fois damay tàmm di dégg ñuy joxe exemple ay Rwanda ak yenn dëkk yi nga xamante ne ràññee si set waaye damaa xamul naka la Rwanda war a gën a mën a set Sénégal parce que Sénégal ay jullit ñoo fi ne te jullit ak set ñoo ànd saa su ne tudul jullit tamit catholique yi kenn rawu leen si lépp loo xamante ne doxal dëkk bi moo tax soo demee si yenn diwaan yi culture set daf yàgg am soo demee Casamance wala nga dem si séeréer yi wala nga dem peut-être Ndar ak feneen soo demee si gox-goxaan yi si village yi ñoom suñu yeewoo lu ñuy njëkk def mooy bale seen cour bale bale seen buntu kër fexe ba foofu set ba gan su fa ñëwee xelam day dal ba pare day ñeme sax environnement bi parce que quand un environnement est agressif forcément il y a un problème et c'est pour cela que cette journée nationale de set setal de propreté initiée euh, justement par le président Bassirou Diomaye Faye qui va arriver d'un instant à l'autre ici a mobilisé toutes les énergies Vous voyez autour de moi, il y a le service civique national et on parlait justement de l'éducation à la citoyenneté. Et j'aurais aimé voir le ministre de l'Éducation nationale nous dire qu'est-ce qu'il entend faire justement dans ce domaine. Vous voyez le service civique national, ils sont là. Et vous avez également l'UCG, vous le disiez tout à l'heure, 5000 personnes. Ah, juróomi junni nit waaw bii leer na léegi ñooñu ñoo fi teew moo tax sëñ Xaali dañuy doxal rek wan leen image yi nga xamante ne mooy rafetal Sénégal xoolal drapeau national bi fële ca tente bi nga xam ne président foofu lay waaj a jël kàddu kon nag sëñ xaali mbir maa ndaw Sénégal jóg nañu góor ak jigéen magam taw fexe ba tey du ñuy tàmbalee booru 10 heures jëm 18 heures 19 heures ñu gis beneen xar kanamu Sénégal un autre visage de Dakar et justement pourquoi Thiaroye tout à avec euh, Pape Alé Niang et vous nous disions que c'est un choix qui s'impose quelque part la région de Dakar parce que Thiaroye aujourd'hui Cette zone-là est inondée, inondable. Et forcément, il va falloir commencer par les euh, zones de les zones les plus les, où c'est encore plus sérieux quand on parle d'inondation et ñëpp xam nañu ni Thiaroye fi nga xamante ne moo di hôpital bi camp bi nekk bor bi rond-point bi soriwul ndox bi day tàmm di wàll di ñëw di sonal nit ñi ah, ak euh, dëkk yi nga xamante ni ñoo ko wër Pikine Guédiawaye ba Rufisque affaire inondation moo tax ñu teel a jóg fexe ba setal dëkk bi raxas caniveau yi waaye nag suñ ci jógee ba pare waaw ñu gën a seetal euh, jëf rek comme Cheikh Lo ni mu ko doon waxee ak jikko yi. kon Ibrahima loolu nga wax euh, loolu mooy li am solo ndax euh, ni nga ko waxee diine yëpp bala ngay mën a jaamu suñu borom dèjà fokk nga set ndax loolu dafa doon loo xam ne nii farata ci mën a jaamu suñ borom loolu di benn. ñaareel bi tam wax nga seetal jikko yi ndax liy tilimal dëkk bi de façon matérielle sur le plan purement matériel li tax dëkk bi am ay mbalit mooy jikko yi ñi nga xam ne moo nekk ci ñi ñoo fay indi mi. waaye bu nit ñi nag defee seen ite xam ne nag set laabal sa xol moo waral yow sa xol bi nga xam ne nii moo sax ci yow ca ngay mën a xam xel mu rafet mbaa xel mu ñaaw nga def lu rafet mbaa def lu ñaaw moo ca xamee amee xam itam xelu ni mbalit rafetal xam ne ak acte citoyen la ca ngay amee itam xelu safaan bi tilimal nekkat kat lii mbeddu ñëpp la te ce qui est extrêmement dangereux mbeddu ñëpp la ak bari bi bu ñëpp la ndax bu li ñëpp bokk ku nekk da cay bay waaram bu ko defee ku nekk bu ñu dajee nag di ping di bay ku nekk boo dajee ak sa morom ca waaro da ngay dëpp sa waar foofa dina set bu ko defee tool bi yëpp boo ko set loolu mooy itte ji yaa ngi doon wax léegi ne Rwanda pour mu gën lu tax ñu koy citer en exemple parce que Rwanda xam nga ko keneen xam na ko discipline moo fa am kenn waxul ñu téye nit ñi di leen xuppa di leen xool waaye nag dafa am loo xam ne lu mënta ñàkk la am réew nag dafa am loo xam ne moo doon ay kenn yoo koy lal moo di ñu teg ko ci war ma teg ko ci yar teg ko ci teggin teg ko ci ay jikko yoo xam ne ni itam moom la ñuy wax jikkoy maxaram wala xalaat ndax bu ko nekk xalaatee noonu rek lépp mën naa am mu yemb gis nga nii peel yi gis nga mbale yi gis nga itam peel yi ni ah, ngi doon waxtaan léegi ak DG bu SONAGED li mu doon tënk léegi en français rek la ñu bëggoon mu ñëw si ci ñi nga xam ne moo doon jumtukaay yi ci wàllu nit ñi ngeen euh, euh, jël ak jumtukaay yi nga xam ne moo doon peeli mbalit mi ak yenn euh, tracteur yenn machines yi nga xam ne jël ngeen ko ndax mën ngeen ci dellu si waat waaw jërëjëf xaali comme ni ma ko waxee rek donc bi kilifa yi réew mi joxee ndigal bi Sonaged comme yeneen structure état yi tamit liggéey na ci te ci loolu ñu mobiliser ci réew mi yëpp euh, juróomi junni agent ñaari junni yi ñoo nekk ci ci région de dakaar ñetti junni yi nekk ci euh, yeneen région yi ñu xamal ne aussi li ñuy def nii caaro yi ñu ngi koy def feneen ci yeneen gox ci biir Ndakaaru mu ñu ko euh, gouverneur yi préfet yi. ak ci biir Sénégal yëpp ak ci biir Sénégal yëpp ñu koy coordonné. Euh, ci côté juróomi junni agent yi ngeen jël ngir Sénégal yëpp la. yëpp la loolu ñetti junni ñoo nekk fii Dakar ñetti ñoo ne ñaari junni ñoo nekk ci biir Dakar ñetti junni nekk ci région yi. parce que loolu aussi soo ko gisee mooy que ñun liggéey bi ñuy def fan yëpp. pour jëlee mbalit mi day continuer ça veut suñu métier bi nga xamante ne dañ koy def oto yi dinañ continuer di dem ci quartier yi di jël mbalit mi euh, liggéey bi day continuer donc ci matériel bi tamit indi ñetti téeméer jumtukaayu matériel mooy nekk ay pelle mécanique ay camion ay benne tasseuse loolu également ci Dakar mooy juróom-ñaari fukk yi nga xamante ne fii ci région de Dakar la lu ñaari téeméer fanweer yi nekk ci région yi donc matériel boobu lañ mobiliser pour que journée bi mën a nekk réussite waaye li gën am solo mooy suñu weesoo bës bi ban taxawaay la ñu war a am ban taxawaay la nit ñi war a am pour bañ a tilimal bañ a yàq caniveau yi bañ cee def mbalit waaye tamit gën koo sàmm parce que suñ ko sàmmee léegi mooy tax nawet bi su ñëwee mu bañ a am jafe-jafe. jërëjëf ah, xam naa ne DG du ñàkk ñu amaat occasion pour dellusiwaat laata ñuy jël suñu benn invité dañuy delluwaat ak Ibrahima Diédhiou Ibrahima il paraît que euh, tu y a quelques personnes ressources autour de toi et que tu aimerais bien alors t'entretenir avec ces personnes là. waaw sëñ Xaali man de euh, ministre de l' éducation nationale laa bëgg rek euh, mu ñëw wax si li nga xamante ne mooy li war sax si xel si jikko yi parce que éducation nationale mooy yar moo. moo ŋànk lu ëpp si sunu suñu doom réew yi war leen yar war leen tàggat war leen jàngal damay tàmm dégg muy wax ni dañu war a defaraat jikko yi une école de la réussite une école de la citoyenneté et looloo tax ma bëggoon mu ñëw rek waxtaan ak ñun xam naa dañuy xaarandi tuuti le temps que muy agsi waaye di fàttali rek ni li ngeen di gis moom warul nekk loo xamante ne war nañu bett en réalité parce que su ñuy wax mbirum set kenn war si woo kenn ñëpp war a jóg commencé setal réew mi te am na ay image yu bëre yoo xamante ne ku ñëw biir Sénégal du la neex nga nekk si diaspora bi wala nga dëkk fii soo gisee yenn gox-goxaan yi yenn mbalit yi wax dëgg yàlla da ngay xaw am lu la metti si sa réew moo tax ñu bëgg rek ndaw ñi gën a farlu gën a taxaw si li nga xamante ne moo di liggéey bi la monsieur le ministre de l'éducation nationale merci de nous rejoindre sur ce plateau on parle euh, dañ koy wax si wolof parce que lu dul bés bile dañu war a liggéey si setal jiko yi yow yaa ŋànk lu ëpp si doomu réew mi war a fexe bañ leen yar tàggat leen yan jéego nga fas yéene def pour que lépp loo xamante ne acte citoyen la bañ a sànni si mbedd bi soo gisee mbalit buy traîner nga woote ñu jël si ko wala yu ni mel si lan nga jublu pour que loolu mën a sotti lii euh, ma président sant rek ak premier ministre sant ko gouvernement bi yëpp mooy euh, ci jox ñu benn vision ak orientation ci ministère bi lu leer nañ nee na euh, yaral ma xale yi former leen pour ñu nekk citoyen déjà orison wu 2035 bii mu nekk ñoo xam ne dañuy sukkandiku ci seen i valeur seen cosaan ci seen diine xam seen bopp xam fi ñu jóge xam fi ñu nar a jëm wante tamit mu leeral ma ñaar ne dama bëgg nga yar leen nga éduquer leen ñu nekk citoyen yoo xam ni ñaari pilier yu important mooy am solo moo leen transformé benn bi lépp loo xam ne digital la numérique la intelligence artificielle la tey jii mënta ñàkk àdduna moo doxee noonu àdduna nañu la borom bi bindee noonu noonu la toogee beneen bi mooy lépp loo xam ne environnement la climat la ODD la développement durable nee na dama bëgg xale yi ñu rey yar leen ci loolu ndaxte kat Euh, fii adduna di dem waxul sax Sénégal mooy lépp luy climat environnement ak euh, euh, respecter sa sa sa sa gox sa sa sa ji sa forêt sa faune loolu ku ci taxawul da ngay ñàkk te tey jii problème yooyu dafa commencé nekk loo xam ne dafa tar te nag Sénégal très bientôt ñu nekk pays boo xam ne day nekk ci logique u exploitation donc gazière ak pétrolière donc day gën a tar suñu góorgóorlu suñu taxawul président message bu mu nar a lancé tey jii message boobu la c'est vrai qu'il parle à tous les Sénégalais mais essentiellement mi ngi wax xale yi transformation systémique bi ñuy wax ci bopp la logiciel boo xam ne dañ koy changer mais mi ngi gën a yomb nga changer ko au niveau des enfants qu'au niveau des adultes. moo tax ma bëggoon laaj ngeen fas yéene def notamment si école yi. est-ce que mën nañu jàpp ni école yi dina continuer am ay dina gën a am ay am na école yoo xam ne duggee monsieur le ministre da gis ay mbir yoo xamante ne doxul seen toilette yi yenn saa yi mooy loolu. ñu bëggoon xam est-ce que am ngeen plan boo xamante ne si école yi déjà dañuy commencer seetal environnement. am nañu plan déjà donc euh, améliorer environnement apprentissage bi waxuma sax toilette yeeg mais dañu bëgg ci biir mu am ay gàncax ba pare dafa am logique cantine scolaire dañu bëgg xale yi au-delà de euh, li ñuy lekk. ñu mën ko produire ñoom seen bopp euh, mu nekk ay jardin yoo xam dañ koy am mu am benn vraiment au-delà de toile rek simple mais nekk réellement une logique boo xam ni de développement durable et euh, de d'harmonie avec l'environnement donc xale yi poubelle xale yi euh, gànjax xale yi décoration amélioration seen cadre de vie xale yi inclusion xale yi lépp loo xam ni dafa nekk naturel du durable ci lañ leen nar a yare te ministre euh, de l'environnement mi ngi fii moom un des piliers importants mooy éducation donc à l'environnement kon dafa nekk loo xam ne dafa dugg c'est au cœur de de de de du processus d'apprentissage et au-delà de cela c'est que ci wàllu programme yi ak curriculum bi y a une réforme extrêmement profonde pour di leen jàngal di orienter en fait seen prise de décision seen façon de concevoir donc seen logique yëpp di ko changer en fonction donc de ces nouvelles donnes de ces nouvelles problématiques. na solo parce que si loo ko tàggat yoo xam ne mënoo fexe ba ñu sànni mbalit suñu nekkee seen biir oto dama bëggoon xam monsieur le ministre de de l'environnement Daouda Ngom est-ce que tey jii xam nga zone yi dafa nekk ay zone inondée est-ce que mën nañu jàpp ni état bi war na mën a gën a liggéey si lu koy prévenir waaye aussi si lu koy saafara ay poubelle ngeen may ko wala ay sac poubelle ngeen may ko euh, citoyens yi nga xamante ne yeewoo fii si biir Dakar. merci beaucoup euh, mais danga may may tuuti avant may wax ci loolu euh, ma wax ne président de la République dafa initier journée bi. pour impulser une dynamique ñaax sénégalais yi ñu gën a jublu ci seen environnement parce que environnement dafa occuper une place importante ci programme am léegi nag man message bi may lancer au sénégalais mooy il faut que ñun sénégalais yi ñu approprier wu de cette journée parce que ay initiative yàgg na fi am et ça à rien de lancer une journée après ñu fàtte mu jàll quoi lii nag dafa nekk journée boo xam ne nii lancé nañ ko dinañ ko pérenniser incha allah mais pour ñu mën ko pérenniser il faut que population yi xam ne seen yëf la lu yëfu président président nee naa leen dafa initier quelque chose seetal sunu réew il faut que ñun sénégalais yi ñu jël ko muy sunu yëf te profiter ci lii pour ñaar sénégal yi aussi ñu ngi jublu ci tabaski bi tabaski buñ ko waxee souvent dañuy jël euh, déchets organiques yi boutique yeeg yooyu di ko sànni ci caniveau yi nga xam ne day fatt caniveau yi ndox mi du mën a jàll inondation yi bu ñëwee sonal nit ñi euh, léegi nag par rapport ak li nga wax en tout cas gouvernement du Sénégal fi mu ne nii li ñu dañoo jël environnement comme ni ma la ko waxee def ko une super priorité parce que environnement dafa transversal boo demee ci éducation ñu ngi wax éducation à l'environnement boo demee ci transport boo demee ci industrie boo demee ci euh, énergie ci lépp dañuy wax Euh, et environnement te transition écologique aussi dafa transversale ñëpp la laal léegi nag gouvernement bi dina ci def lu mu man équipement yu ndaw yi ngay wax pour école yeeg pour dimbale nit ñi ñu am le minimum pour mën a combattre les inondations ak les ordures euh, bi dina ci def li mu man incha allah te déjà on a commencé parce que au niveau du ministère de l'environnement génne nañ quand même du petit matériel Euh, yoo xam ne nii ay dotation yu ñu joxe la lu demee ni ay beel ay brouette ay brouette ay râteau ay bale yooyu joxe nañ ko te dinañ continuer action yooyu pour mën a dimbale Sénégal yi aussi ñu jàpp ci euh, xeex mbalit ñu jàpp si combat bi comme xale ni ñu koy waxee dañuy tàmm di gis seen village yi soo fa demee dañuy yeewu di bale seen buntu kër est-ce que tey jii grande agglomération yi comme Dakar comme yenn grande ville yi jàpp ngeen ni collectivité territoriale yi war nañu mën a liggéey ak état bi parce que en réalité ñoom dañu war a dugal seen loxo bu baax si mbir bi est ce que war ngeen mën a lëkkaloo. Mhm. pour que ngeen xàccindoo dóorandoo pour que Sénégal set parce que mënuñu dëkk di ñu jox exemple Rwanda. Mhm. te ñun ñu nekk ay sénégalais nekk ay jullit ba pare ñuy. wax Rwanda man mën nañ lu ko ëpp. Euh, mais collectivités locales yi. xam nga ñoom ñoo ñuy faciliter le travail. parce que ñoom bu ñu jàppee lëkkaloog ñoom rek souvent sensibilisation bi dina mën a jàll yenn action yi dina mën a jàll donc mooy li ma wax ñun euh, gouvernement bi am nañ benn chance mooy am na une collégialité ministère de l'urbanisme ministère de l'environnement ministère de l'éducation ministère de l'hydraulique ministère yëpp ñooy lëkkaloo pour travailler ensemble pour loolu ngay wax ñu jëmmal prise en compte de l'environnement ci lépp lu ñuy def au Sénégal parce que environnement sain boo ko amul doo am wër te boo amul santé doo am productivité liggéey du man doo mën a liggéey donc environnement mooy lépp mooy la base te dinañ ci def lu ñu man pour ànd ñun ñëpp en tout collégialité le gouvernement pour liggéey ci ci ci loolu avec les collectivités locales. waaw ñu ngi caaro yi sëñ xaali question bu mujj bi rek mooy ku nekk dama bëgg nga am loo wax ak sa askan yow monsieur Guirassy waa Kédougou Daouda moom xam ma fu lay féete. <laughs> léegi euh, euh, li li li may wax rek euh, du ma ko wax waa Kédougou donc maa ngi koy wax pour Sénégal yëpp. Euh, ndaxte euh, ndaxte mbir bi mooy problème conscience la daal problème mu valeur la problème mu gis-gis la am am na loo xam ni. mais y' a plus de caméra là. Ah, non c'est bon c'est bon c'est bon allez-y. mais y' a plus de caméra. y' a d'autres images qui passent à l'antenne. ah ah excuse-moi d'accord donc li ma doon wax ma ne c'est pas un message donc à l'endroit de de Kédougou rek c'est à l'endroit de tous les Sénégalais. c'est problème de conscience problème mu dignité la problème mu ngor la problème mu diine la aussi diine chrétienne diine tamit lislaam moo dafa loo xam ne ku nekk danga war a puiser ci sa xol ci sa gëm-gëm pour xam ni set baax na xam ni euh, sa responsabilité am na jàngoro yoo xam ni am na feebar yoo xam ni yàlla tegu la ko euh, donc loolu président dafay lancer message dafa war a nekk simplement un déclic donc il faut que ñu génnee ko ci cadre fonctionnaire ak administration mu nekk loo xam ne day nekk un problème porté par tous les Sénégalais et je crois que c'est ce message la encore une fois transformation bi Sénégalais yi bëggoon ba tey ji alternance am il faut ñu transformer mu nekk alternative te alternative googu du mën a nekk mukk te changé wuñu sunu gis-gis te gis-gis bi yomb na demal jël rek ci maam li mu gëmoon ak diine li mu la teg ak yow loo gëm comme war na yomb kon mooy message bi na ku nekk gore nun ku nekk dellu ci cosaan dellu ci boppam du fu tubaab du fu colon du fu dara mais bëgg sa bopp la xam sa bopp la xam lu baax ci yow la loolu le président di lancer comme message. jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Moustapha Mambaya ak euh, Daouda Ngom ministre de l' environnement doomu Fissel waaye nag Yves dama dama jàpp ni fi président war a agsi après dafa war a gën a set. c'est ça parce que am na ay mbuus yoo xamante ne yenn saa yi ñu romb sax. ay jour du défilé avril mbirum sachet plastique yi xam naa daaw na ngoom su ñëwee après dinañ si waxtaan moo tax jàpp naa ni fii yëpp dafa war a set balaa président di ñëw kon nag sëñ xaali mbir baa ngoom jërëjëf Ibrahima euh, xam naa dañuy euh, am jataay ak ki nga xam ne ni moom moo doon Madické Cissé mooy directeur de la prévention dans la gestion des inondations ndax ku nekk xam ne nawet bi dañ koo dëgmal ku nekk xam nañ ne itam ni ñu ko waxee bu ñu dëgmalee nawet kon ñoom dañu am cër boo xam ne cër bu am solo la ci seen wàllu liggéey ak ci seen wàllu itam waajal li nga xam ne moom la ñuy dëgmal ngir mën a moytu lii doon itam léeg-léeg waame wuñ loolu loo ko gisee euh, jërëjëf euh, xaali ñi ngi lay sant di gërëm waa RTS yëpp si di ko jaarale si directeur général tey ji bis bi président invité sénégalais yi ñun ñoo ñun la ko defal parce que dafa dafa permettre tey ji exemple bi mu war a joxe fii ci Sénégal nga xamee ne kana euh, yi ne kano kano yu nekk ci Sénégal yëpp tey ji ñu ngi koy def ce qu'on appelle un curage paree si curage préventif boobu daañu defaat ce qu'on appelle le curage curatif tey jii curage boobu nekk na moomeelu askan wi te buñ ci jugee am nañ yaakaar ne askan wi daañu teel seen bopp kano yi ba nga xamee ne tabaski bii ñuy dëgmal kenn du jël si ay curage préventif mooy liggéey ngir ba dara a fat ba du mën a fat waa kay te loolu euh, euh, bi mooy bu ñu demee ba nawet bi taxaw nga xam ne suuf seeg yooyu day daw duggaat ci kano yi ñu daal di jógaat lu dugg rek ñu génnee ko ànd ñoom moo tax vraiment ñi ngi sant président ci euh, taxawaay bi mu am tey jii ci wàllu xeex inondation euh, am na solo beneen pàcc bi nga xam ne aussi le premier ministre dana ko jiite ci 10 heures ci Sangalkam pour xool askan wi nga xam ne dañoo dëkk ci yoonu ndox yi dëkk ci xur yi dëkk ci béréb yi nga xam ne ay bérébu ndox la mën a doon ñu euh, ni ko ni mu ko waxee ci conseil interministériel sur la gestion des inondations avec le ministre de l'eau et de l'assainissement pour que ñu mën a am beneen taxawaay ci xeex inondation ci ah, wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Euh, loolu itam nimiku nañ ko waaye ci nawet bi itam ñooy jàmbat tam dañuy wéy di jàmbat ba tey ana lan moo ci sooxe. waaw xam nga li ci sooxe mooy euh, inondation dafa dafa di li nga xam ne tey jii dépendrul ci taw rek changement climatique yi dafa ëpp dayoo mais. bu ñu génnee ci wàllu taw bi wàcc nga xam ne tey ji day ëpp dayoo ñun suñu dëkkuwaay dafa di li nga xam ne dañ ko war a seetaat te premier ministre wax na ko ministre de l'hydraulique mi ngi koy mi ngi ciy liggéey maanaam ñu defaraat suñu taxawaay suñu dëkkuwaay bu ñu dimbale ba ñu defaraat suñu dëkkuwaay mu am beneen taxawaay maanaam ci wàllu aménagement du territoire wàllu occupation de l'espace incha allah rabbi dina gën a wàññeeku ak li nga xam ne tey jii mooy moo askan wi teel seen bopp ouvrage yi loolu la président santaane premier ministre di ko di ko jëmmal te am nañ yaakaar ne donc beneen dynamique bu bees ñu ngi koy indi ci wàllu xeex inondation beneen dynamique bu bees ñu ngi koy indi ci wàllu xeex inondation bi maanaam beneen waajtaay woo xam ne ni dinañu gën a mën a takku. ba li nga xam ne moom la ñu dëgmal mu doon nawet bi buñ ci yegg ak jàmm te suñu borom indi ndox mu jàmm ak salaam te mu sedd guy. Mhm. lii doon itam ndox mi wal di fat ba ñenn yi itam seen i kër di taa. c'est ça ba itam yi mbedd yi di taa ba kenn du fa mën a jaar. Mhm. loolee bu mënta dañ ba jeex tàkk itam. dina wàññeeku ba yegg ci lool lool lool ndax loolu bëgguk askan wi la ñi fal ne incha allah euh, ci euh, waxtu ci euh, minute yu néew rek président ba Bassirou Diomaye Faye dina teew fi nga xam ne moo doon caaro yi ni ñu ko waxee nag fii dafay bërëb boo xam ne moom kilifa gi réew mi dafiy tàmbali xam nañ ne itam premier dina tàmbali fenn yeneen diwaan yi itam kilifa ya fa nekk ñu jot ndigal dinañ lëngoo ak askan wi ndax mbir mi mbiru askan wi lañ ko wax ndax buñ nee tey jii euh, ci esprit citoyen bi la ñu bëgg itam fexe ba mën cee yegg mën koo itam laal ba ñëpp xam ne kat lii seen mbiru bopp lay war a doon ndax kat li ñu gis mooy mhm. askan wi la tax ñu war koo gën a wane seen bi ndax ñoom ñoo gën a sonn itam ci inondation loolu am na ñi nga xam ne ni itam ñoo doon ñi seen amul tam tam léeg-léeg yenn day ba mën a dëkk fenn fi mhm. dëkk fenn foo xam ne itam yemamaay la ay xur la uh-huh, ak i dund loolu nag ñoom bu ñu leen ne kaay leen ci lii war uh-huh. nañ koo mën a def seen i mbir xam ne itam niñ ko déggee kilifa yi wax ko uh-huh. nekkul mbiru nguur rek mhm. nekkul mbiru Masamba rek nekkul mbiru Mademba rek mbiru Sénégal yëpp lay doon te itam nee nañu nañu fexe ba lii rikk waaye buñ ko tàmbalee tey buñ ko dakkal ëllëg jërëjëf la doon loo xam ne nii luy wëy lay doon ndax taw bi luy wëy lay doon ci kàttanu yàlla mbalit mi itam luy wëy lay doon ñuy wëy di ko produire leneen li ñu war di wëy itam wëy itam moo di ko tonni di ko setal bu ko defee uh-huh. loo lu mënta ñàkk comme mm-hmm. on produit de façon assez pérenne ah, suñu borom mën naa def ñu mën a mucc ci yenn yi kon euh, Madické euh, Cissé ñu ngi lay euh, gërëm di la sant ci taxawaay bi ñoo bokk liggéey bi ci turu ministre Cheikh Tidiane Dièye ñu ngi koy nuyu moom itam ñu fàttali ne rek ni ñu koy baaxoo di defee saa su yu mbir mi am mel nii amee lépp lu doon ay jumtukaay yoo xam ne itam dafa war kër gii di RTS nga xam ne ab liggéeyam la ndax nguur gi itam da ko am cër bu mu ko dénk mu nekk liggéeyal askan wi ci liggéey liggéey askan wi nag moo waral li nga xam ne day mbiru askan wi RTS di ci bay waaram ànd ci ak ñi nga xam ne ñoom lañu war a bokkal liggéey bi yëpp. kon loolu ñu fal ne tey jii tolloog benn fan ci weeru mai ñi fal nag Sénégal yàgg nañu ci tonni mbalit ndax euh, am na ñoo xam ne ñu ngi fàttaliku Sowadib muy bërki Dembo jaay am na ñoo xam ne ñu ngi fàttaliku Sias muy bërki Dembo Ndiaye tey jii itam ay ama Sénégal amoon fi ñi nekk ci ay Sonaged ak leneen ak leneen ak leneen ak te boobu ba tey gis nañ ne la woon woon ni wut kon war nañoo gën a mën nag soppi doxalin soppi doxalin wi nag mooy mu bañ a doon mbiru collectivité yi rek ak agent yi nga xam ne ni dañ leen a jël di leen fay ngir ñu liggéey ci loolu ñi ñuy jëlul ñu leen liggéeyuñ ci loolu te ñu indi mbalit ak itam war di tonni mbalit itam seen mbir la war a doon ndax Ibrahima Diédji mi ngi ko doon wax ni ki sànq démb dañu doon gis suñu kilifa yi su fajar jotee jël seen bale taxaw ñii jël seen bale sëgg ñii jël itam li nga xam ne moo doon seen saako soble yu xonq yi nga xam ne moom lañ doon layee suuf ak am tame yoo xam ne sax dañ ko doon layee suuf daal di wër kër gi yëpp te niñ koy waxee itam euh, bala ngay bay bale fenn itam mu doon keppaaru jàmbur yow njëkkee ci sa keppaar boo njëkkee sa buntu nekk njëkkee ci sa kër bu ko defee boo génnee ca mbedd bi dinañ ne liikat lu yell la waaye mënoo bàyyi sa biir kër bàyyi sa néeg di dem ci mbedd mi mbaa itam nga am esprit boo xam ne nii moo di ne lii kat bu ma ko fi defee itam am nu ñuy ñëw di ko tonn si waaye yow fexeel ba bul def waaye itam ñi nga xam ne itam ñoom ñoo war a tonni ak ñi ñu war a jox jumtukaay yooyu itam nañu fexe ba ñu def ko ci def ci itam sa jaayante ci ndax tey esprit bi ñuy wax mu doon esprit jaamu suñu borom ndax lu ci nekk rek waaw ñi ngi mel ni euh, père président de la république mi ngi ñëw xam naa ne sous on aura les images de l'arrivée du chef de l'État le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ici euh, au niveau de Thiaroye euh, pour la cérémonie de lancement de cette journée euh, dédiée au nettoiement je vais devoir vous laisser vivre cette ambiance-là njiitu mi président Bassirou Diomaye Faye ni mu ko waxee woon si na fii nag fii nga xam ne nii ci la war a amee waxtaan fii nga xam ne itam ci la war a waxtaanee ab soññe ci la war a waxtaanee ab jaaj ci la waxtaanee itam ngir bàyyi loo xel ngir conscientiser les populations sur la nécessité urgente de faire de la question du nettoiement une affaire personnelle et citoyenne loolu buñ ko defee ku nekk dina xam ne lii kenn waruma cee njëkk ndeem nag dama koo bëkk ak ñëpp te kenn ëpp ma ci cër damay fexe ba man tool bi nga xam ne ni dañ koo bokk te ku nekk itam am foo tàmbalee sa di ca bay dangay fexe ba sa waar gën a set ba noppi itam suñ ca yeggee ba fa ñuy dëppee dem gopp ya ñu nga xam ne kat fii nii bay nga ko mbay mu set te daggoo gàncax la nga dagg mooy ñax mi nga xam ne nii moo forte nekk kon loolu mooy esprit bi nga xam ne nii moom la ñuy wax euh, président de la république ni mu ko waxee itam xam nañ ne jëwriñ yëpp ak ministre yi ak premier ministre dina am yeneen barab yoo xam ne dañ faa dem ngir soññe kon nag tey jii fii ci caaro yi ñoom ñoo aye ku tudd caaro itam tudd yenn barab yoo xam ne nii ak mbalit mi ak ndox mi ak waajtaayu itam di doon nawet bi kon euh, je vais vous laisser alors euh, découvrir ces magnifiques images de l'arrivée di président de la République, le président Bassirou Diomaye jaxaar Faye, ici au niveau de Tiaroy pour la cérémonie de lancement de la journée du nettoiement, une journée qu'on veut pérenne, qui va s'inscrire dans la durée, que ne ce ne soit pas une affaire alors euh, mornée. C'est ça l'esprit. Oui, Ibrahima. waaw jërëjëf dañuy jël waa service civique national rapidement lan ngeen fas yéene impliqué aussi bés bile ak euh, juste. c'est le bâton de parachutiste, c'est les militaires, ce sont les militaires. Euh... Oui, allez-y. Euh, ce sont les militaires, donc euh, nous, nous sommes le bataillon de parachutistes. Oui, euh, je suis le commandant ici, donc je suis venu avec euh, les militaires qui sont ici au niveau de la barrière pour participer à cette journée euh, dédiée à, au nettoiement des de, de, de collectivités. Oui, effectivement, comme nous avons dit fait, aussi nous aussi, nous avons en fonction des instructions qu'on a reçues de notre commandement. pour venir voilà tey suba ak ginnaaw suba yëpp voilà jàppale ñëpp comme ni ko président bi waxee ñu jéem a setal réew mi si seen loxo civil yi dugal si seen loxo merci jërëjëf kon nag euh, yéen ngi cortège président de la république mi ngi nii di jublu si lii ngeen ce sont des images euh, voilà de communion entre le chef de l'État le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye les populations de Tcharoy euh, en direct sur la RTS, journée nationale de Setsetel. Et vous avez justement le drapeau national, qui flotte euh, ici avec euh, les populations qui, sont sorties en masse. dañ leen di bàyyi ak suñu gars yi nga ne ñooy filmer lii en direct sur la RTS. Forte et grande communion entre le président de la République euh, qui va arriver sur les lieux dans un court instant. Voici donc le président de la République qui arrive à Tcharoy pour cette journée de cette sétale encore nettoyée et toujours nettoyée. Voici donc et si tu ne pas le président Bassirou Diomaye Djahafé avec euh, une casquette aux couleurs du Sénégal avec... Euh, voilà, le président de la République euh, accueilli par euh, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cher Tidiane Djei. Et... Les membres du gouvernement, tous présents. Et voilà, Voilà le président qui est venu avec ses épouses et ce sera l'occasion d'appeler sans doute les femmes à davantage investir dans le nettoiement, dans la propreté au sein des maisons, mais également dans les ruelles et artères du Sénégal, dans les quartiers, les villes et les villages. Le président qui salue les membres du gouvernement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable, de la transition écologique, le ministre de l'Éducation des pêches et de l'économie maritime, les responsables de l'administration territoriale, la police nationale, l'Assemblée nationale, les députés, Mme Dialafam et les autres élus. Voilà, en ce... cette journée Et c'est l'occasion justement de Sëñ Khalifa Telirek bir voilà. Ibrahima ñii ñooy les véritables acteurs. di nettoiement ñoom la njiitu réew mi di nuyoon tel di saafonteeg ñoom. la gendarmerie di. Euh, la brigade nationale des sapeurs-pompiers mhm. l'armée des autorités euh, religieuses. Je vois au visage très connu à la RTS euh, les religieux et c'est les jeunes du cadre de vie qui, euh, qui disent précis, qui scandent et qui clament justement leur implication. Ah oui, c'est des forts moments de communion. ma nga kon loolu am na solo Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu ak ak sa nos équipes qui sont au de la République voilà le président qui continue de saluer les autorités le service euh, national d'hygiène le premier acte qu'il va poser le président de la République qui va saluer les populations. absolument ma nga kon xaaral mi ba ngoog ma bàyyi la tuuti nga mos. ci ambiance ñàkk xam nga lii day doon loo xam ne nii euh, day doon mbiru liggéey waaye itam day doon mbiru saafonte saafonte ak ñi nga xam ne ñoo doon askan wi askan wi nga xam ne nii itam ñoom ñoo am kóolute ci moom. ba teg ko fi mu ko teg voilà ambiance ba ngoog xaalis ko itam di bëgg ak moom ci li nga xam ne itam moom lañ àndal liggéey bi ndax kaa ñu baax dafa neex. kaa ñu set dafa neex kaa ñu jub dafa neex kaa dafa neex ana ci ñan la naqari nag mooy xanaa ña lan mooy jubali ak lu ni mel ñu yi ñu déglu ambiance bi nga ambiance bi euh, elle est là elle est euh. ah lii mooy lii ci accueil yi njiitu réew mi di nuyonte ak di saafonte waaye itam di am ay kàddu yoo xam ne nii kàddu yi ziar la yu dox ci digganteem ak ñi mu fekk ñu doon ñi ko daleel fii tey jii ci caaro yi ñi fàttali ni bés bi moom la jagleel wàllu cet gi bés bi nag dañ ko jagleel tàmbali gi waaye cet gi du yem tey du yem ëllëg du yem gannaaw ëllëg li ñu bëgg mooy ñëpp ku nekk bay ci sawaar bu ko defee fii ba nga xamante ni itam moo doon lañu ñu séentu ñu mën ko cee am ndax lañ cay séntu mën ko cee am moo di réew moo xam ne itam dafay set te tubaab moo naan nettoyer c'est bien mais li gën mooy na pas surtout salir fexe ba bañ a tilimal mbaa bu tilimal mën ta ñàkk itam loo tilimal nga fexe ba ni ko ba mu set wicc ba kenn itam mën koo gis ci xar kanam boo xam itam xar kanam bu rafet la loolu daal mooy li nga xam ne nii moo doon ci tey njiiti réew mi moo doon bëgg-bëggu réew mi moo doon bëgg-bëggu askan wi te moo doon itam jàmm askan wi ndax ket googu ak li nga xam ne moo doon taaral googu dafa neex lool te baax lool ku la ci woo nag woon na la ci baax loolu nag kaa ñu baax nag dafa neex moo waral tey jii Ibrahima xam naa ne yaa ngeek uh, njiitu réew mi mi ngi uh, wéy di nuyoon tey ñu ngi wéy itam di ko wan li nga xam ne nii moom moo doon jumtukaay yi ak taxawaay bi nga xam ne itam moom la nit ñi fas yéenee taxaw mu doon taxawaay boo xam ne ba abada lay doon ndax niñ ko waxee ndem tam tàggoo ak moom waay waaye fañ bu ñu tàggoog set te set nag dafa doon li ñu jig voilà mu di mu di mu di bu bu symbolique parce que xale yi ñu ko doon wax sànq ñoom lañu ñu war a gën a tàggat pour que Sénégal fi i at du ñu waxaat mbirum insalubrité yu métti yooyu mbirum salte yu métti yooyu kon nag mbir baa ngoog plaisir d'accueillir son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar voilà président dafa mel ni day day suux dafa mel ni day day day dafa mel ni day setal fii. ah moom daa tàmbali déjà. waaw sëñ Xaali. waaw xool leen image bi. waaw parce que mi ngi ko doon wax naan suñ demee nag xam naa ne ku nekk dina def preuve d'émulation ñu xool ndax ñu nag yéen kan mooy war a gën a war a njàmbaar kon nag tey la tey defe naa ne Ibrahima. waaw mu ngoog ñu bàyyi image bi waxal boppam. waaw ma seen nii fourchette la. président sol na tëdem sol na gileem ci biir poubelle bi waaw léegi nag yëkkati na fourchette bi ak ñax ma nga xam ne nii ma nga koy dugal ca deuxième coup de fourche justement pour euh, Ibrahima nag ku miini tool li du la jaaxal wax dëgg yàlla waaw li li lii ku miini ci mel ni moom miini tool ak keneen ak keneen ak keneen lii nii du la jaaxal ndax gerte ga buñ ko yóbbu ba ko yóbbu ca naaf ba di ko tar nii lay demee. ay setal moom. waaw. ak ñoomi seen kenn du ko jàngal waa gox goxaan waa Njagañaaw ak waa. dëgg la. dëkk yooyu nekk ca Casamance wala Saint-Louis wala Diourbel wala feneen si si Sénégal 14 régions yëpp. ak sama dëkk ba di nuyu ñuy dund en kon nag soxna yaa ngoog mhm. soxna yaa ngoog soxna président yi ñoom tamit dañuy bokk si li seetal réew mi ma ngoog ah macha allah ci biir poubelle bi. lii rafet na Ibrahima. lii ab soññe la. kon nag kenn waratu la des ginnaaw. kenn ah, waratu toog bañ koy ah, soññ ah, mbirum set ñoom lañ si gën a ràññee te ñoom lañ ko gën a dénk si kër yi yoo même soo demee sa si entreprise yi ñooy tàmm ni def liggéey boobu waaye war nañu gën a mën a waaw bi ñu am bi ñu moom pour que ñu yar si xale yi. Mhm. yar si askan bi yar si seeni i morom ndax jigéen ak set ñoo ànd. waaw ñii ko euh, lu fi rafet rek ñooma kon ñoom war nañ cee gën a mën a bay seen waar gën cee war a mën a taxaw ndax kat ñoom la ñu dénk la nga xam ne nii itam moom moo doon kër gi te kër gi itam ci la am réew tàmbalee kon ñoom bu ñu leen soññee ci lii ñu wane ci itam misaal day doon loo xam ne itam la am solo la gis naa sax benn xale bu taxaw noonu loolu itam gis nga gis nga kon mbir mi amul xale amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñëpp ci bokk ñëpp ci bokk ñëpp ko war a def seen itte ndeyetu réew mi nga xam ne nii moom la suñu borom dénk réew mi def na lu ni mel gis nañ soxna yi def lu ni mel gis nañ xale yi def lu ni mel gis nañ mag ñi def lu ñu mel kon nag rikkuwaay na ko ñëpp def seen i bopp seen mbiru bopp lii mooy fourchette bi nga xam ne nii ci la ñuy tonnee mbalit mi di ko dugal ci li nga xam ne nii itam moom moo doon euh, poubelle bi bu ko defee itam lépp luñ ko war a jël ba yóbbu ko foofee ba mën a tam liggéey mbalit moomee itam ñu liggéey ko noonu de la poubelle ñu fexe ba poubelle am fépp si biir entreprise yi si biir kër yi si biir école yi ay poubelle fu ñu jamono ñu nii poubelle day ànd ay sache moo tax ñu doon wax sànq ak ministre de l' environnement lan la ñu war a def ba kër yi gën a am ay poubelle waaw ministre de l' environnement moo nekk di tibb nii daaw dangam mu am culture la de de, de la salubrité. Mm-hmm. dans les écoles dans les entreprises un peu partout au Sénégal et c'est le ministre de l'éducation justement également qui va devoir montrer l'exemple dans les écoles du Sénégal. Moustapha Mamba voilà, qui a fini de poser cet acte euh, symbolique en cette journée de cette étale, journée nationale de propreté, le président qui va donc euh, rejoindre l'enceinte dédiée pour son allocution. Vous allez suivre en direct sur la radio sénégalaise. avec euh, les explications du ministre euh, de l'hydraulique et de l'assainissement Cheikh Tidiane Dièye moo koy dalal ànd si ak ay yeneen membre gouvernement bi ndax bés bi lay au-delà de l'État du Sénégal euh, au-delà du, du gouvernement de l'administration c'est tous les citoyens qui sont concernés et interpellés Et dans un instant, le président va s'adresser au peuple sénégalais. Madame, Monsieur, bonjour. sont impliqués. Madame, Monsieur, bonjour. Prêt pour le... Euh, waaw ginnaaw ba ginnaaw euh, ba son excellence monsieur le président de la république tàmbali liggéey bi nga xam ni mooy euh, assainissement bi journée de mobilisation citoyenne bi nga xam ni moom la woote woon tey jii ñu tàmbali ko fii waaye ñuy xamal ni fépp ci Sénégal monsieur le président de la république ah ñu ngi ko fay amal loolu ci orientation yi nga joxe woon ci conseil des ministres tey nag ñu tàmbali ko de façon symbolique waaye sa yéene mooy fexe ba ñu jël bës bu nekk ci weer wi ñu amal ko ngir mën a andi euh, des actions de prévention contre les inondations donc ginnaaw bi nga tàmbalee tey ñu bàyyi la nga wax ak askanu Sénégal wax ak la presse euh, que nous pour leur présence monsieur le président de la République remercier l'ensemble du peuple sénégalais qui s'est massivement mobilisé pour nous rejoindre dans cette journée de Set Setal, qui est une journée d'investissement humain communautaire, allant dans le sens d'anticiper les inondations, parce que c'est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée se tient en tout cas l'ouverture de ce, ce cycle que nous voulons long tout au long, tout au cours de notre mandat. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remercier les maîtres d'œuvre de cette journée, à savoir les ministres de l'Environnement et de la Transition écologique, le ministre maître d'œuvre en chef de l'assainissement et de l'hydraulique, et ses autres homologues qui ensemble, ont travaillé pour la réussite de cette journée. La mobilisation que j'ai vue partout au Sénégal est exceptionnelle et rencontre chez le peuple sénégalais de leur adhésion à notre démarche de gouvernance basée sur la co-construction. On a appelé au Djoubanti, au redressement. Cela veut dire Nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Nous avons décidé récemment de lancer des assises pour demander à travers même un vox populi au peuple de nous dire ce qu'il pense de ce qui les regarde. L'assainissement aussi doit être l'affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien. éviter de salir et quand nous constatons que ces salles doivent systématiquement penser à nettoyer. Il y va de notre santé, il y va de notre bien-être. Je voudrais aussi remercier les écoles et les responsables de ces écoles qui ont mobilisé massivement les enfants pour qu'ils sortent. Et le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lesquels il est, il est déjà que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau et au regard des inondations et de leurs conséquences. Mais à travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais partout où qu'ils soient, qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le, le, vivre ensemble. Et nous devons toujours nous poser la question de savoir quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte On verrait très rapidement la différence dans les conséquences entre celui qui salit et celui qui évite de salir ou qui, celui qui nettoie après avoir sali. Je voudrais enfin continuer à appeler les Sénégalais à ne pas faire de cette journée une journée circonstancielle. C'est un défi permanent. C'est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN collective. Et nous devons tous, où que nous soyons, nous sentir concernés. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu présent et bonne journée de cette alsuméré. Merci. sant bu di leen jaajëfal bu baax a baax jaajëfal askanu Sénégal mi nga xamante ne génn nañu ci mbooloo mu takku ci bës bi bokk ak ñun bésub set setal bii nga xamante ne ku jóg rek xamal na sa bopp nga jógal waaye ku jóg tamit xamal na sa réew nga jógal amul lenn lu gën a noble setal fi nga xamante ne mooy sa dëkkuwaay waaye setal fi nga xamante ne mooy sa réew ak foo mënti nekk nag ak loo mënti def di jaajëfal balaa may gën a sori ministre yi nga xamante ne ñoo doxal organisation bi ba ca bés bi ñu toll tey muy principalement ministre assainissement ak hydraulique ak ministre environnement ak transition écologique ak ñëpp bépp ministère boo xamante ne impliqué nawu ci ndax ci solidarité gouvernementale la ñu nekk ci collégialité la ñu nekk te gouvernement bi yëpp laay félicité au premier titre le premier ministre mi nga xamante ne mooy coordonné l'action de ce gouvernement-là qui en ce moment même mu ngi ci beneen sit di def la même chose bi nga xamante ne moom laay def maanaam impliqué wu ci setal suñu réew may jaajëfal rek ñëpp ñi nga xamante ne ay école lañ ay responsable école lañ ñiy yar xele yi ci set ak setal ba tax ci bés bii ñu woo leen génn leen massivement pour ñu bokk ak ñun bésub set setal bii nga xamante ne warul doon rek benn bés ci bés yi waaye suñu yéene mooy mu nekk loo xamante ne dañoo ko dugal ci suñu doxalin ak ci suñu jëfinu bés bu ne yéene gouvernement bi ak yéene président de la république bii ma doon mooy weer wu nekk ñu am bés bu mel nii ba ñëpp ñi nga xamante ne ay tuut tànk lañu bu ñu màggee màggee xam de Sénégal weer bu nekk ñëpp dañuy jóg ci kër yi ci koñ yi ci communes yi ak pépp ci biir réew mi di setal parce réew mi bu saltee ñun ñoo ko saltel bu setee ñun ñoo ko setal kon suñu responsabilité ñun ñëpp mooy bañ a setal bañ a saltel waaye suñu responsabilité ñun ñëpp mooy bu saltee ñu set ñu setal ba mu set ndax suñu wérgu yaram daf ci am loo xamante ne ci loolu lay tukkee ñu mën ko garantir suñu bopp lii nag défi bi mooy lan mooy naka lañuy def ba maanaam weer wu ne ñu mën ko amee te loolu lay woo ñëpp ndax ci jubante lañu woote te jubante bii du doon mbirum gouvernement bi du doon mbirum président de la république day tàmbale ci jubal ba du ñu soxlaa jubbanti loo xamante ne jub na ba pare ci suñu comportement au quotidien waaye day tam am solo tamit ci bu ñu dee jubanti bépp sénégalais foo mënti nekk nga xam ne lii jubul yow sa responsabilité la nga jubanti balaa nga ciy xaar benn autorité parce que gouvernement bi mënul nekk fépp waaye lu ñu mën mooy wane yoon wi wax sénégalais yi fii la ñu bëgg a jëm ak yéen di ci diisoo ak yéen saasu ne parce que xam nañu responsabilité bi ñu ci am responsabilité boobu ci yéen la tukkee ndax seen responsabilité ngeen jël jéebal ñu ko te moom la ñuy doxal te gëm nañu ne doo leen ñu jiital ba pare deltu gannaaw di ñu seetaan waaye di ngeen ci jàpp bu baax a baax ndax ñoo bokk Sénégal ñoo bokk lépp asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà président de la euh, kon Sénégal 7 Sénégal 7 la woote mi nuyu secretaire général de la présidence Oumar Sambaba nee na mbëbëtam mooy weer bu ne ñu ko mën a def li nga xamante ne moo di setal bi voilà le président day day mujj def li nga xamante ne moo di safante ak euh, ndaw yu fi ñëw donc waa cadre de vie le président qui va donc euh, rejoindre euh, son véhicule et quitter Thiaroye avec un message très fort autour du Djubonti, autour du mu ne voilà, président. Bassirou Diomaye Diakhar Faye dugg na si otoom après kàddu yu mu yëkkati ngir ñu gën setal réew mi loolu yëpp si esprit jubanti bi nga xamante ne ñoom ñi jiite réew mi tey jile moom lañu ñu lancé soññ si ñëpp ma euh, avec toute la sécurité requise, le président de la République va quitter Tiaroy. Un symbolique, Mamdia la femme. député yi tamit war ci mu mbir bu am solo cadre de vie maa kontaan ngeen. kontaan trop. direction générale cadre de vie avec le président Diomaye. jërëjëf waa cadre de vie. et puis am na ñeneen ñu ma gis tamit ñu sol ay t-shirt yu ma maa kontaan ngeen. Ah, le président va descendre de sa voiture. mi ngi dem nuyu waa service civique national. maman Nancy ak euh, ak ñi mu àndal ñooy euh, saafonte ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye service civique national seen taxawaay am solo lool parce que ñi ngi gën a waxtaanee lépp lu jëm ci éducation civique nga xam ne ñun bu ñuy nekk élève dafa nekkoon loo xam ne dañ ko saxal ci école yi mu doon mbir bu am solo cortège bi demee. les militaires également sont impliqués les forces de défense et de sécurité. suñu larmerie ak euh, police bi gendarmerie douane service d'hygiène eaux et forêts ñoom ñëpp war si dugal seen loxo mu doon euh, mbir bu am solo doon mbir bu am solo waaw waaw waaw allez allez le président voilà Le président qui revient pour saluer encore. Ah, la gendarmerie, voilà. La gendarmerie qui euh, également fait partie de cette dynamique euh, autour de cette journée de la propreté. Esprit propre, comportement propre pour un Sénégal propre. Et c'est ça aujourd'hui le grand message. donc waa gendarmerie sol seen casquette voilà di tóojal président comme le veut la tradition les honneurs au chef de l'État avec euh, cette liesse populaire autour. Euh, du chef de l'État. Qui va quitter Thiaroye Mangok Pape Belem jërëjëf voilà le président qui va donc euh, diggante Caaroy ma ngoog ak cortège bi gars yi jóg nañu ma ngoog voilà waa UCG ñoom ñëpp a teew voilà topp ba dee yow la ñuy topp embossement lañ bëgg waa ma ngoog waa UCG voilà cortège bi jóg na kon miir baa ngoog euh, sëñ Xaali salaamaaleykum nangu nañu nag sëñ Xaali mbir maa ngoog à et on se rejoint Merci. voilà ma ngoog waaw ma ngoog xale yi si biir euh, Thiaroye gis nañu Gana Sène di inspecteur d'académie bi ak euh, ñi nga xamante ni ñoo di maire yi maire Thiaroye Kaw aussi mais seen ñoom ñu war si mm-hmm. waaw Ibrahima rafet na noonu nga ko doxalee noonu baax na foofu kon euh, gis nañ ne njiitu réew président Bassirou Diomaye Faye après avoir donc euh, effectué alors le démarrage Euh, de la cérémonie de lancement de cette journée de nettoiement a pris congé de ses hôtes, des euh, invités donc qui étaient venus pour communier avec le chef de l'État le président qui a délivré un message particulièrement fort et avec une invite assez pressante aux populations de faire de cette journée nationale de nettoiement une préoccupation nationale. Il a dit que il est toujours bon de, ne, de nettoyer, mais naturellement, ce qu'il faut chercher, c'est de ne pas salir. En tout cas, dès, à chaque fois qu'il y a des débris, à qu'il y a des tas d'immondices, il faut naturellement avoir le réflexe citoyen de nettoyer automatiquement possible kon loolu doon na loo xam ne soññ na ci askan wi soññ na ci itam ñi mu bokkal réew mi soññ ko itam waa réew mi yëpp ndax nee na lii ñu def nii tey fii ci Caaroy noonu lañ koy defee itam fépp ci Sénégal kon nag li nga xam ne dañ koo dëgmal mu doon wàllu nawet bi te xam ñu leen itam liñ ciy xaar dañuy mën a fexe ba mën a waaj waaj na ca gën mooy jekk jekk nag la nga xam ne nii moo tax ñuy yegg ca jekkaay boobu buñ ca yeggee moo di waajtaay bi nga xam ne dañ koy waaj dañ koy wàcc na mu gën a rafete tey jii nag xam ne ñu ngi fii ci Caaroy caaro itam am koo xam ne nii moom la ñu ko dénk ci wàllu commune bi mu doon maire bi di mbay Sène euh, monsieur le maire tey jii vous avez reçu le chef de l'État qui a effectué ici la cérémonie de lancement de cette journée de nettoiement alors euh, quel est le sens que vous donnez à cette journée donc qui nous a fait l'honneur de venir euh, visiter la commune de Thiarégar pour lancer le journée nationale de Set Setal. C'est un honneur pour toute la commune de Thiarégar. Donc nous sommes dans un environnement auprès de l'hôpital, l'hôpital qui est confronté à des difficultés majeures pendant les hivernages. Donc c'est un hôpital de niveau 1, mais pendant l'hivernage, l'hôpital devait être accessible. Donc le président de la nous a fait l'honneur aujourd'hui de Euh, lancer le programme set sunu sunu réew mais au-delà de là aussi lancer le programme d'assainissement de l'hôpital et son environnement. donc et, au niveau de la mairie au niveau communal quelles sont les actions concrètes que vous devez mener. présentement nous sommes en période de de, de pré Donc nous sommes en train, en train, de faire naturellement à cette période, de faire le curage des caniveaux, de préparer avec les jeunes. Donc je me suis dit que le président nous a rejoint véritablement sur un travail que nous avons entamé. Chaque, chaque semaine, il y a une association qui prend une grande axe d'Atiaroy pour véritablement mener une opération de nettoiement, une opération de sensibilisation. Donc nous saluons l'initiative du président de la République de mener cette activité sur le plan national. kon euh, ki ñuy waxtaanal moo doon euh, maire mbay seen mu nekk maireu euh, Thiaroye Gare kon tey fii la njiitu réew mi ñëw ngir dara jàll leen li nga xam ne moo doon tàmbali gi ñu tàmbali liggéey bi ana loolu ban jàngat ngeen ci am ak yéen ci wiyaari maire bi itam nan ngeen mën a fas yéene taxaw ba lii ñu leen wax mu doon loo xam ne ëllëg lu ñuy woyal lay doon waaw loolu moom comme lu ma wax rek dañ siy gërëm di sant le président de république parce que y a plus mu opté son choix sur la commune de Thiaroye-Gare pour ñëw lancer le programme national bi nga xam ni journée céréale nekk donc loolu nag président bu la defaree honneur démarré ko sa commune sas la sas bi mooy démarré nañ tey waaye waratuñoo taxaw mais fi mu aussi dafa am importance ñu ngi nekk en face hôpital euh, Pikine hôpital Pikine ñu koy wax si hôpital Thiaroye aussi nga xam ne dañu am ay jafe-jafe yu mag si inondation inondation bu jotee bu commencé taw pendant trois mois dañuy am un dispositif de sapeur pompier bi donc lii nga xam ne tey bijou la pour la banlieue tey président bu ñëwee lancer cette activité mais au delà de là lancer waale activité bi nga xam ne tey dañuy la l' assainissement dans la zone loolu dañ koy remercier le président de la République avec euh, le gouvernement comme ni nga ko waxee nag tey dafa nekk bisu d'or bisu d'or bi nag importance bi mooy ñun période hivernale bi ñu nekk commencé nañ def le curage des caniveaux mais Thiaroye nag dafa nekk zone bi nga xam ni ku xam Thiaroye rek xam ni zone inondable la donc loolu nag ñu ngi siy jéem suñu kattan ay kattan di nekk si curage yi débuté yenn activité dans l' assainissement mais gën a tàllal loxo le gouvernement pour ñu accompagner si la xam ne mooy assainissement nga xam ne compétence transférée donc vraiment au nom de toute la commune de Thiaroye-Gare et du département de Pikine dañuy gërëm de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye. jërëjëf euh, monsieur Mbaye Sène euh, maire de la commune de Thiaroye-Gare euh, Thiaroye-Gare qui a abrité cette cérémonie de lancement de la journée de nettoiement journée qui vient d'être lancée de façon symbolique et officielle par le chef de l'État le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et nous rappelons que cette journée se déroule sur l'ensemble du territoire il n'est pas question de démarrer et de stopper. Mais naturellement, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et pour, pour tant qu'on aura des ordures, naturellement, tant qu'on aura des ornures, il y aura des pelles mécaniques, il y aura également des pelleteuses, il y aura alors euh, des fourchettes et autres poubelles pour assurer un nettoiement effectif de Dakar et du Sénégal. Comme nous le itey réew mi la monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm di la ndokkeel itam ci bis bi xam naa ni itam am na liggéey bu leen di xaar ñu ngi leen ciy ñaanal ndam ak succès incha allah jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di sant jërëjëf merci ki ñu doon waxtaanal moom moo doon euh, maire euh, Mbaye Sène maire bu euh, Thiaroye Gare tey jii nag ni ngeen ko gisee nii waa Thiaroye ñëwoon nañu gisee nañu njiitu réew mi diisee nañu moom sottante nañu moom xalaat ci ni nga xam ne itam moo doon communier nañu ak moom ndax gisante nañ bu baax saafonte njiitu réew mi itam li mu leen wax leer na nee lii na ko ku nekk def mbiru boppam nee na nag euh, jëmbat ci boppam boo koy def da ngay dem ba fa nga xam ne nii fa ñu jàpp ne war nga faa mën a amee loo xam ne nii itam njëmbat ma day jebbi loolee ñu wax nag mooy fexe ba xale yi nga xam ne nii ñoo war a doon ndaw ëllëg te ñu war a itam la ñuy war a ji ñu ji ko ci ñoom ñu jàngal leen loolu ci école bi xam naa ni sax ña nga ca waaye li mu bëgg daal mooy ñu gën koo dolli gën cee taxaw gën cee indi li nga xamante ne nii moom moo doon ayite gën cee def itam li nga xam ne nii moom moo doon farata loolu moo doon li nga xam ne ni moom moo doon bëgg-bëgg njiit réew mi moo doon bëgg-bëgg réew mi loolu itam moom moo doon bëgg-bëgg ñi nga xam ne ni ñoom ñoo doon taxawaay biñ ci war am tey jii nag ni ñu ko gisee ni mbooloo mi ñëw nañu te ki ñuy waxtaane fi mu nekk nag moo doon directeur di cadre de vie kon monsieur le directeur général Alors, euh, vous, donc, euh, vous avez fait le déplacement euh, pour vivre avec nous cette cérémonie de lancement. Vous, concrètement, au niveau du cadre de vie, qui parle de cadre de vie, naturellement, parle d'un secteur extrêmement névralgique dans le domaine du nettoiement. Quelles sont les actions concrètes que vous avez envie de poser pour matérialiser cette vision du chef de l'État Merci, merci bien. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour la tribune que vous m'offrez, pour me permettre de parler un peu la journée de cadre de Donc, euh, je vais commencer d'abord par saluer l'initiative noble et tant attendue du président de la République qui a quand même su booster ou créer l'émulation au niveau de la population pour que cette journée soit une journée réussie. Donc, euh, nous, au niveau du cadre de vie, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la dynamique de la journée, temps en petit matériel, parce qu'aujourd'hui, en termes de, en terme de petit matériel, nous avons déployé presque 1500 unités, plus maintenant des véhicules bennes et des chargeurs pour permettre quand même que euh, la journée Le petit soit... matériel, il est en réalité composé de quoi Il est composé et ainsi de suite. Et vous en avez euh, euh, unités, qu'on a déployées pour la réussite de la journée. Sur l'ensemble du territoire Sur l'ensemble, non, au niveau de Dakar. Dakar seulement. Maintenant, au niveau national, nous avons aussi déployé presque 3000 éléments parce que nous avons en charge les Xëyu Ndaw ñi qui ont qui est un programme très important. Donc ces jeunes que vous voyez en tenue bleue font partie de cette unité-là qui nous ont permis quand même de bien prendre en compte cette journée et de la vivre avec le président tel conformément à la prescription ou à la recommandation du chef de l'État. Directeur général tey jii euh, ànd nga ak ñun ñu teewee tàmbali gi nga xam ne nii moom la ñu tàmbali bés bi ñu jagleel wàllu set ak setal. dégg nga li njiitu réew mi wax ana yéen ci wàllu cadre de vie nga xam ne itam ku leen tudd itam tudd wàllu itam bërëb boo xam ne day ñoŋ xar kanam bi rafet ana lan moo ci war a doon lan xam ngeen si seen taxawaay sax waaye nan ngeen mën a mën a jëmmale seen taxawaay boobu. waaw damay faral di wax ne bale baax na nettoyer baax na mais bañ a tilimal dafa gën kon ñu gën a ñaax suñuy concitoyens ñu gën a xam ne kat cadre de bi nga xam ne moom la ñu ne. dañ ko war a mun a jëmmal ñongal ko ba mu taaru comme ni nga koy waxee mais aussi ba setak ak cell gi nga xam ne moo ci war mun ci ne pour que nit ñi mun a am kaaraange ak wér-gi-yaram donc ci kaaraange ak wér-gi-yaram dafay aaju trop ci li nga xamante ni mooy cadre de vie bi donc bokk na ci nag première recommandation bi muy ñuy faral di bale donc ma rafetlu initiative bu président santu ko gërëm ko ci li nga xamante ni taxawee na ko parce que tey ñu ngi dëgmal nawet te ku wax nawet wax ndox mu bëri ku wax nawet ndox bu bëri wax aussi jàngoro donc jàngoro li koy faral di indi du dara lu dul yenn foyer yi nga xam ne dafay insalubre nga xam ne du am kaaraange du am cet gi war ndox mi ñëw jaxasoog moom bu ko defee muy am incidence ci dundinu askan bi donc tey su wootee njëlbeenu taw mu santaane ñu nettoyé kon dañ koy rafetlu sant ko ci gërëm ko ci di ñaax suñuy concitoyen rek ñu xam ne mbale mbirum cet ak set du loo xamante ni benn bés rek la ñu continuer di ko def président dafa joxe juste instruction pour que ñun ñu def ko mais ñun nag ay concitoyens yi ñoo mën a jëmmal ñoo mën a bale ñoo mën a jàppale président ci dynamique bi nga xam ne nekk na ci. directeur général bu cadre de vie euh, àndoon nañu amoon nañ lool mbégte euh, bokk ak li nga xam ne ni moo doon plateau euh, kon incha allah itam xam na yeneen jamono rek du ñàkk ñu daje feneen ngir ci yeneen waxtaan incha leen di ñaanal itam. ndam di leen gërëm. ñi fali nag li nga xam ne ni moo doon bis bi. ñaam na ñaar yoo xam ne dañ koo dëgmal li ñu dëgmal mooy bés bi nga xam ne nii moo doon bésu tabaski te ku tudd tabaski itam tudd ay gàtt yu ñuy lewatal léeg-léeg gàtt yi ñuy lewatal itam dafa am ñoo xam ne nii dañoo tëxat ba la xam ne itam moo ca doon ay jumtukaay ak la ca nekkoon itam ca gàtt ba ñu jël ko di ko dugal foo xam ne nii dafay taa di ko dugal foo xam ne nii itam du set di ko dugal foo xam ne nii itam day fat te loolee nag fu mu fekk fu ndox ma fekk day doon loo xam ne nii day tax ndox ma du mën a jàll loolu nag moo tax ñu ciy yeete di ci soññe di ci dagaan itam li nga xam ne ni moo doon taxawaayu askan wi askan wi bu ko defee ñoom ñu xam ne kat li nga xam ne nii moom moo doon bëgg-bëgg boobu li nga xam ne ni moom moo doon taxawaay boobu ku nekk mën cee baye waaram loolu moo doon wàllu tabaski gi bu ñu jógee ci tabaski gi itam incha allah ci wàllu nawet bi ku nekk xam ne ni su ko bu bët sebbee ndox mi itam mën naa am foo xam ne léeg-léeg la ko fay dugal du ko fa génn te ko fay téye nag léeg-léeg jëfi doomu aadama la moo waral yéete bi ak soñe bi ngir doomu aadama yooyu bàyyi xel ci jëf dañuy def ak lor gañ mën a mën indi lor te lor sa doom ku doomu aadama nag defa bokkul ci li nga xam ne nii benn diina santaane na ko kon loolu bokk na ci soññ bi nga xam ne nii ñu ngi koy soññ am nañu itam geneen gan mu doon docteur Cheikh Dieng qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir monsieur le directeur général directeur général la LONASE ku ko tudd tudd wàllu nettoiement alors monsieur le directeur général cette journée vient d'être lancée vous êtes LONASE et acteur naturellement presque principal du secteur du nettoiement, du curage et également d'enlèvement des ordures. Quel est le sens Naturellement, le sens, nous le savons et nous le connaissons, mais comment comptez-vous concrètement vous y prendre parce que on a vécu quand même des moments assez difficiles et on a voulu attendre. Alors, euh, la main salvatrice de l'ONAS, malheureusement, ça peut tarder à venir, Vous, vous venez d'arriver. Quelle est la nouvelle dynamique que vous comptez impulser Mais je vais d'abord remarquer la symbolique du lieu où le président de la République a lancé les journées nationales de Setal Sunu Réew, un site habituellement inondé à côté d'un hôpital et pour lequel nous sommes en train de prendre les mesures pour euh, mettre en place un dispositif d'évacuation des eaux de pluie. Donc ces journées, elles se placent dans un contexte, euh, dans un contexte extrêmement euh, euh vulné de vulnérabilité sociale des populations avec l'approche de l'inondation, où euh, ces journées vont être des journées d'abord euh, de la campagne de prévention des inondations. Campagne de prévention des inondations qui se, euh, qui se feront concrètement à travers le type d'ouvrage que vous avez vu que nous sommes en train de faire avec le creusement d'un sillon pour le passage des eaux. Mais surtout, et le Premier ministre l'a dit, l'appel aux communautés pour une approche communautaire, une approche participative de la gestion préventive des inondations où ONAS, et c'est là où je reviens à votre question, va accompagner les communautés dans les actions de prévention des inondations dans leur quartier. Nous avons déjà un lot assez important de petits matériels pour ces, pour ces communautés-là. Nous allons euh, mettre, nous à disposition nos personnels pour un encadrement technique et nous allons aussi continuer les opérations de curage des canalisations, euh, d'évacuation des eaux de pluie où nous sommes de réalisation de 55 pour cent dans la région de Dakar. 55 pour cent seulement. de 65 pour cent excusez-moi dans e, le programme avait pris beaucoup de mais aujourd'hui depuis euh, de mettre les bouchées doubles pour que autant à Dakar dans les régions en tout cas toutes les canalisations ONAS puissent être euh, c'est l'occasion de faire un appel aux populations. ONAS ne pourra jamais tout faire. que nous voulons que les populations, lors de la Tabaski, se garde bien de jeter les détritus, de jeter les pots, de jeter euh, les restes de la Tabaski dans les canalisations euh, d'évacuation des eaux de pluie parce que c'est un travail que nous avons déjà réalisé à 65%. Si nous devons le reprendre, ce sera très difficile. Mais au-delà de la Tabaski, nous voulons faire à l'esprit civique, à des populations pour pour que de jeter des ordures dans les canalisations d'évacuation des eaux parce que cela va faire euh, cela va bloquer le, le, le passage est... des eaux et ces eaux-là vont se retrouver dans nos domiciles c'est un message très euh, important oui, un, appel du cœur que je voulais adresser aux populations. Pas que ce message sera entendu et que les populations vont vous aider à davantage euh, maintenir alors euh, ces ouvrage et ces infrastructures kon loolu docteur daf naa dañ koy tënk ci wolof te ji mooy bés bi nga xam ne nii moom la njiiti réew mi doon tàmbali fii ni ñu koy def ci Sénégal yëpp ngir benn fan ci weeru juin te ñuy jàpp ne weer wu nekk itam nañ koo def waaye bët bu set itam war neem day bët bu set ñuy tilimal bët bu set itam ñuy tonni mbalit yéen nag waa ONAS ku leen itam tudd ñi nga xam ne nii ñoom ñoo doon ñiy fattal ñi ak ñiy sikkar ñi yenn barab yi nga xam ne dañoo fatt mbaa ñu sax waaye itam ñiy tonni li nga xam ne nii moom moo doon yenn bari waaye xool ndox mi itam mu bañ wal Euh, ba bu wala itam bañ a taa fenn bañ a indi li nga xam ne moo doon bënn tey jii lan moo ci seen taxawaay ak jumtukaay ak yaa ngi doog a ñëw ak nan ngeen waajale loolu waajal nañ ko ci ñaari boor benn euh, canalisation yi nga xam ni fa ndox mi jaar ko ONAS àgg na ci à un taux de réalisation de soixante de soixante cinq pour cent dans la région de Dakar e dinañ mettre les bouchées doubles ci Dakar ak ci région yi lépp luy canalisation lu ci suñu objectif ñu man ko atteindre ba cent pour cent ba dépassé ko sax luy man nag may ñu dépassé ko mooy approche communautaire bi nga xam ni moom la premier ministre lancé keroog le 15 mai bi muy lancé toute cette dynamique la mooy askan wi xam ni lii ñuy def état bi ñoom la koy defal mais ñoom ñoo ci ñoom ñoo état bi leen ci war a fekk ku nekk ngay nekk ci wàllu cet mais surtout ngay nekk ci wàllu fargandiku la jëm ci inondation day dañuy delloo ci symbolique gu bi nga xam ne tey moom la président ñëw fi pour lancer fi opération yoo xam ni euh, dafay war a wéy ba faw site bi site boo xam ne day inondé la ñu fi creuser canal boo xam ne dañ fi may yoon euh, ndox mi pour que du mën a dugg ci hôpital bi di indi ay jafe-jafe lu muy wane mooy ci opération pré-hivernale yi lépp loo xam ne day nekk yoon bu ñu war a yàq ci suuf si pour que ndox mi man cee jaar. docteur mel na ni canal bi li ngay wax moo doon liggéey bi ñu def nii defe naa ne. moomay moomay liggéey bi ñuy def nii ci ah, gannaaw kon ñoom ñoom daanaka ëllëg de. déedéet déedéet ah, xaar dara la ñuy def mais lii lañ bëgg nag population yi ñu gunge leen ñu yor seen i peel seeni i râteau yor seen i matériel yu ndaw ci quartier bu nekk. ñun def nañ une li ñuy wax une brigade d' intervention rapide bu fekk nit ñi ci seen quartier gunge leen ci pour ñu def ko ci biir quartier yi li nga xam ni tamit nekk na euh, lu curage canalisation yi bu ONAS jàppee fii population yi jàpp fee loolu dina tax ñu mën a wutal euh, yoon bi euh, ndox mi yoon bu muy mën a jaar ba génn kër yi en tout cas contexte bi ñuy jëlee ONAS nekk na contexte boo xam ne nawet bi gàtt na waaye dinañ def sunu kamtalaay kàttan incha allah ba inondation ni mu doon mel euh, ak yee weesu ñu mën ko wàññi bu baax a baax loolu nag loolu nag mm-hmm. dañ cee yaakaar population nga may ma benn message très fort que je vais lancer important important ndax dañoo jëm ci tabaski. incha allah nit ñi bu ñu daggee buñ buñ rendee seen i xar jël der ya jël bopp yi def ko ci canalisation bi loolu day nekk ni euh, liggéey bi ñu defoo lépp dañ koy effacé. Mhm. ñu bëgg a woo askan wi. day nasaxal seen liggéey. day nasaxal liggéey bi mais day indi inondation yi. Mhm. ñuy woo askan wi. ni leen vraiment euh, lii mbalitu tabaski bi mhm. nañu dimbali ngir yàlla war a sóoli ba buñ koy def ci canalisation yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm te suñu borom yombal xar yi dafa naa ne message bi leer na docteur Cheikh Dieng directeur général de l'ONAS mhm. moom la amoon tey ji ci bés bi ñu koy sant bu baax di ko gërëm bu baax ci li nga xam ne nii moom moo doon taal ñoo bokk lépp j'espère que liggéey bi di ngeen ko woon incha allah non suñu liggéey la suñu liggéey la bu soobee yàlla yow liggéey ko def bu soobee Merci beaucoup, docteur. Merci, beaucoup, Merci DG. Alors, comme euh, Nico Docteur Wahé, nous avons donc vu cette euh, pelleteuse qui, est en euh, plein, qui tourne à plein régime pour passer à l'acte. Ibrahim, je crois que les choses ne, ne tardent pas. Et puis, euh, on n'a pas donné du temps au temps. Hein. Il faut mettre les, le pied sur l'accélérateur et aller directement au but. Et je crois que ce qu'on est en train de voir ici, alors ça montre qu'effectivement, il n'y a pas de temps à Non, Vintolni, il faut il faut dérouler. Euh, parce que naturellement Sénégal dafa mériter set. te message bi président wax sànq tënk na mbir yi. te dañ ko yàgg wax. waaw et puis. te Ibrahima boo xoolee. yaa ngi fàttaliku Sawadib. waaw yaa ngi fàttaliku Sias. waaw yaa ngi fàttaliku Ama. waaw yaa ngi fàttaliku yeneen ak yeneen ak yeneen te boobu ba tey dëkk bàyyi itam taxul mu set. kon Ibrahima lii def doon loo xam ne nag wax ji ci boppam. bu mënta wàññi jeex itam na wàññeeku mhm. tey ñu def ci liggéey bi yaa ko doon junj sànq bi nga nekkee fel li nga def ba gis waa Rwanda Pastef rek la te dem dañoo woote Pastef nag mais nañ ko dëggal mu jeex ah dafa mel ni Pastef moo boobu ràññee nañ ko si murid yi waaw xam nga loolu dafa am solo mais ñooñu ñooñu ñooñu ndigal la ñuy xaar <laughs> boo leen joxee ndigal ñu soobu ci liggéey bi la nga xam ni moom nga leen balaa nga leen a ndigal balaa boo nee ndigal bala nga yegg ci lëbi rek fekk daale nañ waar wi. waaw waaw Pastef pas jublu si seetal Sénégal loolu la ñu wax maanaam dafa nekk loo xamante ne comme ni nga ko doon wax sànq kenn war si woo kenn wala di xaar ku la si woo wala ku la si jiitu. parce que set dafa jekk set moo rafet. set dafa élégant set dafa dafa xew set dafa set day indi xaalis. day indi wërsëg indi wér-gi-yaram day yaatal indi dañu war a dañu uh-huh. a fexe waa Pikine Guédiawaye waa Rufisque waa Saint-Louis waa waa waa Tambacounda waa Kédougou waa Kolda waa Sédhiou waa Ziguinchor. waaw léegi nag Ibrahima def naa ne il faut que cadre de vie bi rafet. ñuy ne antenne nekk nii xam nga depuis euh, dix heures ñu ngi ci. onze heures daal la ñu wax ni dañ ko joxe. xam naa des na quelques minutes li ma bëgg wax rek mooy. waaw sëñ Xaali dafa am loo xam ne waratuñu ko nangul suñu bopp. Mhm. mënoo nekk sa oto yore salte sa poche lekk sa mandarine sànni ko si tali bi. mënoo nekk sa oto naan sa mbuusu ndox sànni ko si tali bi moo tax ñuy wax affaire déchets plastiques yi parce que man def naa défilé 4 avril boo xam ne mbuus bi dafa romb nii si kanamu président de la république. quel décor fële place de l'indépendance quel décor dafa rafetul soo utiliser mbuus aussi soo paree dugal ko sa poos ba nga àgg sa kër wala ba nga àgg foo ko mën a sànnee. soññi bi leer na. soo nekkee si kër. tubel 3000 lay jar su la ko état bi joxulee mairie bi joxulu ko. sëñ bi nga dem jëlal ko sa bopp soo ko mënee jënd muusu plastique bu ñuul di fa def say déchets soo demee Europe dañuy trier sa déchets yi bouteille à part leneen à part gars yi ñëw jël yóbbu ba pare ñu dooleel ñi nga xamante ne ñooy ñooy liggéey si set bi. te sax gis naa barki dem benn reportage ca Tugal. de vie ak yéen yoo xam ne nekku ne loolu nga ciy def. ma ngoog ndax ton koy tonn itam nekku ne loolu lañ war a yóbbu. ma ak yeneen mbir yoo xam ne tey jii mhm. tout le monde doit s'accommoder et comprendre que la propreté c'est de l'élégance. La propreté, c'est quelque chose qui est en nous, qui doit être à la limite inné. parce que xale su juddoo set doo ko jébal askan ku fi bàyyi ko itam dañ lay sang ba set doon la delloo suñu borom. Ah, kon cet googu moo njëkk ci doomu aadama moo mujj ci doomu aadama loolu mooy mooy mooy bi li ci des nag fi mu nekk nii mel na ni waa antenne ñi ngi ñu koy laaj xam naa ne Ibrahima li ñuy def nag mooy dafa am loo xam ne itam dañ ciy bàyyi xel mm-hmm. suñu tàmbalee suñu liggéey ñun ñii nga xam ne dañoo féete fi ñu ñu gis suñuy kilifa nekk ak ñun ci naaj wi Ibrahima loolu dafa doon loo xam ne itam lu jar rafet lu jar bàyyi xel la. Mhm. te loolu nag leçon la darsu la ab soññ la. Mhm. kon liggéeyu terrain bi nekkul liggéeyu ma Masamba liggéeyu ma Mademba liggéeyu ñëpp la ndax ki nga xam ne tey jii moom la suñu borom dénk kër gi mu doon directeur général bi mi ngi nekk ak ñun fii ci terrain bi nekk ak ñun ci naaj bi. loolee nag la mu war a doon ci moom effet bi mu war a def ci ñun liggéeykat yi Ibrahima yaa ngi may dégg. effet bi mu war a def. mooy ñu xam ne euh, nooflaay ak toogaay moo amut. dañ ñoo am fu ñu teg ngir ñu nekk ci waar wi nañu jaayante ci waar wi bu ko defee li ñuy am itam mu gën a mën a barkeel li ñuy dundal si njabootam mu gën a mën a barkeel loolu daal ab soññ la boo xam ne ni dañu koy soññ rek ndax euh, directeur télé ngi nii directeur général RTS ngi nii mbooleem itam ñi ñu bokk liggéey baa ngi nii ñi gën a nekk ci yenn bërëb yi ba ci yeneen bërëb yi ñëpp teew nañ kon nag loolu loolu loolu lay seetal télé <laughs> la RTS c'est la télévision voilà du service public de l'audiovisuel. c'est euh, comme ça que nous allons continuer à vivre avec vous sur les grands moments de la télévision et de la radio mais surtout des sujets d'intérêt général comme la propreté au Sénégal. C'est une équation, c'est un défi à relever, sans doute que tout le monde va s'y mettre. Ibrahima, merci à vous, chers téléspectateurs. René, si vous êtes euh, au Triangle Sud, nous vous rendons l'antenne. Merci, messieurs. Et voilà, chers téléspectateurs, pour cette matinée de couverture de la journée nationale de Setal Sunuré, où nous étions en direct de Tiaroy, où le chef de l'État a lancé officiellement cette journée de nettoyage. Un grand merci à nos équipes sur le terrain pour leur travail exceptionnel et à vous,